alors retour sur ce plateau ak beneen invité de marque également mi ngi ak ñun xalifa Goudi euh, c'est le euh, titre moom la ñu àndil tey ce matin dans Weekend Stars n'est-ce pas Samira. effectivement dañ lay nuyu bàyyi la nga nuyu ak ñi lay seetaan. ah na nga def soxna si ça va. ça va sant yàlla. ñoo la ak euh, sénégalais yi lay seetaan jàkkaarloog sa caméra. waaw waaw wax nga dëgg bon salaamaaleykum maa ngi nuyu téléspectateurs yi may seetaan. ak ñi may dégg te gisuñu di nuyu sénégalais yëpp macha allah. nous guddi peut ci ci beneen émission. comme <laughs> boobu boo ñu ko mënee expliquer comment ça s'est passé. <laughs> waaw en fait guddi gi xam nga rek comme ñun ay artistes lañ te dañu yàgg nekk ci guddi. Mhm. di liggéey guddi gi surtout. ba maa ngi doon expliquer léegi ki ma nekkaloon ma ne ko fii dama fi dugg sax sama yaram dafa daw parce que. pratiquement sama xoslu ci musique lépp fii laa ko defee parce que j'étais avec Abi Faye pendant quinze ans et tout avec waa Super Étoile et tout xam nga euh, yàlla dogal mu génn àdduna yàlla na ko yàlla yërëm te fa mu nekk ci barke yonent bi bon maintenant je travaille avec Mao Otayek et tout euh, xam nga morceau guddi ni mu ma dikkee man xaw ma ko sax parce que maa ngi gis Mado léegi sama xarit sax maa ngi koy wax naan ko euh, yàgg na yàgg nañu daje et xamante nañ on se connaît au temps xam rek di wër di bëf di xoslu et tout ndeysaan mu doon jigéen bu baax fan nga nekkoon parce que gisatuñ la dégguñu la woon ci lan nga nekkoon balaa bu ñuy waxtaanee ci projet bu ah digg waaw en fait dama nekkoon ci pour génne dara lu baax mhm. génne musique bu baax xam nga rek pour euh, yàlla yàlla dafa dogaloon dama nekkoon ci Habib mu génn àdduna ma rencontré euh, benn euh, comment dire arrangeur bu mag ku tudd mhm. Mawo Otaek et tout mhm. bi yàlla dogalee macha allah ñu def ay projet mhm. y avait beaucoup de producteurs nag yoo xam ne bëggoon nañu jàpp ci projet bi mooy loolu mais entre temps mhm. xam nga rek ñoo ko mujj defal suñu bopp et tout ma collaboré aussi ak Gelongal et tout Mao moo arrangé album bi Gelongal moo def clip bi ñoom ñoo def tout ce qui est euh, clip ak dans les pages réseaux sociaux et mhm. bon ci yooyu laa nekkoon mu xawoon a tardé tuuti nag bon pas tardé laa ko mën a tuddee mais man maa bëggoon lu baax rek. vraiment ci liggéey waaw ci liggéey bu baax. waaw et puis on dit souvent que les bons artistes euh, euh, des fois dañuy làqatu parce que artistiquement parlant euh, day baax ci ñoom pour ñu mën a génnee lu baax. et ça fait plaisir bi ñu andilee lu lu mel ni guddi. Euh, alors bëgg naa xam parce que guddi ça a inspiré beaucoup d'artistes d'ailleurs ñu bind ci Youssou bind na ci ñeneen bind nañ ci. tout à l'heure yaa ngi wax ni xamoo sax lan moo la ko inspiré. Mhm. mais le message dans guddi c'est quoi exactement. waaw le message naa guddi moom mooy xam nga guddi dafa sacré en fait li ma mënoon a wax nit pour mu dégg ko ci man la jóge man li may vivre parce que su may bind sama musique su may jouer sama guitare sama inspiration par exemple guddi la nekk loolu noonu laa génne toog yore sama guitare jouer ko woy ko ma ñëw toog ak Mao mais Mao alors te ci kat ci kat ci kat guddi naay guddi naay mu ne waaw naay noonu la demee on se fluide. se fait naturellement se fait naturellement toutes mes morceaux sont comme ça se fait naturellement. Euh, guddi bi on s'imagine waaw en fait guddi bi lancement préparation album bi la. incha allah d'ici six mois d'ici sept mois ça dépend whatever exact ñu ngi ci nekk nag ci album bi et tout euh, masterisé nañ ko en France et tout on l'a mixé et tout. Mhm. ñu ngi ci di daw daal macha allah d'ici. six mois incha allah parce que defoon naa la va passer le 29 bi passé sama conférence de presse. Mhm. et tout pour lancer single bi maintenant dama nekk nag pour def promotion bi et tout. effectivement waaw exact mhm. moo tax xam rek. macha allah en tout cas c' un excellent titre et puis ngi xaar album bi avec beaucoup de plaisir. d' ici 6 mois xëy na xaw gudd mais dinañ ko xaar. Hmm. incha allah ah, dinañ ko xaar et puis on attend euh, pour gën a découvrir li nar a nekk ci album boobu. alors pour terminer. Hmm. Euh, quels sont les les projets à venir à part album bi peut être mën nañ la xaar. fekk ay ay spectacles bien sûr on a des spectacles. on a hmm. des spectacles parce que nit ñi woon nañ ñu ñu bari joué fii. Mhm. xam nga joué faa bari na def pub. parce que vraiment nit ñi ñu ngi lay woo. vraiment mhm. ñu ngi may woo nag même au niveau international. mais am na ay dates fii déjà. waaw si y a des dates y a des dates y a des dates yoo xam ne war nañ joué mais après CAN bi. après ah, parce que. mois bi ba pare maa la ko wax dañ koy jël. bu leen teg bu leen <laughs> <laughs> merci euh, wax aussi. ku bëgg a gis euh, par exemple clip bi. boo demee euh, Facebook YouTube whatever tu tapes X A L 2 e Khalifa noonu laa ko bindee boo demee euh, di nga gis clip bi foofu ak lépp lu may def rek dinaa ko kii. macha allah merci beaucoup merci ñu ngi lay gërëm bu baax jërëjëf merci beaucoup alors euh, fàttaliwaat leen balaa ñuy recevoir suñu beneen invité sur ce plateau Mado ak Samira mm. euh, que rendez-vous est donné pour